réew mi 24 TV jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek njiital réew mi Macky Sall mi nga xamante ne rek dafa sàkk woon ñu daal di def ab càmbar koppar yi nga xamante ne rek moom moo nekk ci réew mi ak anam bi nga xamante ne rek moom la ko nguur gu njëkk gi nag teewoon mu neel li di reddition des comptes mi nga xamante ne rek bokkoon na ci seen campagne électorale li nga xamante ne rek digoon nañ ko askanu Sénégal ne nañ nag bés bu ñu falaw rek dinañ ci indi ay leeral mbir mu nu mel nag lii di office national de lutte contre la fraude et la corruption ñu dippee ko OFNAC njiital réew mu yees mi nag dafa sàkk woon rek ñu daal di def publication juróomi at yi nga xamante ne rek moom moo jàll càmbar dossier bi xool bilan yi rapport 2022 ba nag daal di koy publier waaye li ci gën a yéeme nag tudd nañ ci ki nga xamante ne rek moom mooy Mansour Faye mi nga xamante ne rek moom moo nekk goro kii di Macky Sall moom yi nga xamante ne rek ca jamono boobu nag moo nekkoon ministre de développement moom ci jëmi boppam rek daal di nañ koy tudd nag ci fond force Covid yi nga xamante ne rek dajale woon nañ ci lu toll ci 1000 milliards de francs CFA publication bu nu mel nag waral rek mu daal di ci yëkkati kaddu moom mi nga xamante rek moom ci la ndax moom ci jëmmi boppam musul wax te amul lenn loo xamante ne rek am na ca amul lenn loo xamante ne rek war nañ koo signaler ndax moom ci jëmmi boppam rek nee na kenn musul ko convoqué kenn musul ko déglu kenn musul koo woo amul benn entité boo pare boo xamante rek mi ngi ci programme programme d'appui alimentaire bu Covid 19 euh, bu ko woo wax ko lenn nee na nag lii di OFNAC mosul koo woo Cour des comptes tamit mosul koo woo te amul benn institut si suñu réew boo xamante rek na ko wala mu déglu ko wala mu convoqué ko bi nga xamante ne rek kii di Gora Macky Sall dina ko yëkkati mu maire bu Ndar pour jeexal yëf ya nag Mansour Faye nee na moom ci jëm boppam daal amul kenn ku ko mën a topp ci wàllum justice ndax moom ci jëmmi boppam rek lii di histoire Covid 19 bi jaarale na ko fam ko waroon a na ko caa def daal na ko cee def waaye nag nee na génn réew mi tey génn réew mi ëllëg mi ngi fii làqatuwul demul benn yoon kon nag ci Sénégal gi ci lay nekk te lay mos a nekk di kadd yi nga xamante ne rek daal na koy yëkkati jërë ngeen jëf ci teew teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen yi xibaar.